di wax ne su ma ñëw Thiès yàgg naa ko waaj buur mais nag xalaat bi nga xam ne ci la ñu tënku ba jàpp dat ci moom la jógee ma ne ko am na ñeneen ñu ma doon soññ ci département bi léegi kon jóg jot na bu ñu bu ma demee Kazu Rajab ba ñëw incha allah dinaa ñëw wuy si waa Thiès Thiès nag dafa am importance am lu mu symboliser ci man ndax man dama am fukki at ak juróom ñaar gis Ablaye wàdd pour la première fois ma dugg ci PDS boobu mënuma sax voté yàlla di dogal ci keppaaru Ablaye wàdd ma daje fa ak ku ñuy wax Idrissa Seck bi coow jógee jëm ci moom man yàlla rek moo ma tax di wax quatorze millions yi nga xam ne moom lañuy ñuy wooye ay sénégalais mën naa teg suma loxo ci kaamir ne li ma daj ci xeex boobu te kenn daju ko ci mën naa teg suma loxo waat ne li ma daj ngir Idriss Seck benn sénégalais daju ko bu ma may ma ànd ak moom ci PDS ànd ak moom ci réew mi ñu sos parti bi man moom Awa Gueye Kébé ak Pape Diouf yàlla dogal ñaar ñeneen ñi bàyyi ko dem ci yeneen anam parti bi nit ñi di fàq ñoom Talla Diouf Tivaouane Badou Ba Mbour Youssou Diagne Mbour Pape Mboup maa ko dugaloon PDS génn ko indi ko réew mi léegi mooy meeru xombal Cheikh juuf député bu Tivaouane Léna Sène Nafissatou Diop Oumar Gueye di ko tudde doom tudde jabaram doom Papa Ndiaye ancien ministre de Kédougou Fat Sok ngeen xam ko muy doomi Kajoor secrétaire mi ngi nii toog di Uli Matasi di responsable Dalifort ku mës a ñëw siège ba rek Uli moo la introduire ma ngi nekk sama ginnaaw moo yoroon caabi siège bi moo koy ubbi moo koy tëj ku ku ku Idrissa soxla wala Fat moom ngay jaar mi ngi nii sama wet toog ak ñeneen ak ñeneen ma def bilan ne ñun wolof daf ne picc buy naaw mètre bu ne donc wadd fa mu picc ma fa mu jëm du sori picc buy naaw te mètre bu mu dem donc sori ma xam ne Idrissa mi daf ñuy sànq ndax ñooñu dem ñépp moo leen tooñ man nag duma tabax kër ba mu mel ni mu war a mel néeg yi commencé yàqu ma gedd kër gi di luwe ji pentre déedéet damay woo ñii ak ñeneen yeneen dëkk ñu defaraat kër gi ndax moom lañ ci jiitaloon waaye man wóor na ma ne ñi ma ci dugal dugalu leen ci moom nag moo yoroon bayre bi moo yoroon kilifteen gi loolu nag laa bëgg a foqat ñi ci ay loxoom ndax doomu Sénégal la may doomu Sénégal mu dëkk Thiès ma dëkk Touba bërki démb la jóge tuubaa tey ma ñëw Thiès senegal noonu rek lay doxe di wax ne duma ko saaga nag ndax man duma bindoo ma noonu yarewuñu ma noonu waaye jëmatut fenn déclaration yi mu def démb ak bërki démb sax wane na ko ndax daa njëkk ne bu fekkee Macky Sall day waxtaan ak Abdoulaye Wade ndax di ma wut a na Macky Sall xoolaat koppeem xam nga kooko déjà jàpp na ne juboo Ablaye Wade ak Macky Sall da koy sànq loolu ñàkk gëm sa bopp la maanaam psychanalyste yi ak psychologue yi bu ñu jàngatee waxu Idrissa Seck boobu war nañoo xam ne kii gëmatul boppam ndax bu fekkente ne isolé ko mooy juboo ñaari jullit bokk ci réew kenn ki yar keneen ki doomam mu ne bu ñu juboo dañ koy isole psychologiquement loolu wane na na c'est un homme faible qui est am na conscience aujourd'hui que dootul dem mu waxaat démb ne le président de la république dafa war a def un conseil supérieur un conseil suprême pour la république mu ngi wut ba tey li tubaab di wax tremplin dama ne Serigne Abdoulaye daf na woon dooley jàmbur kenn du ko yaakaar pour xeex moom daa war a xam ne bu jeexalee ñi fi jeexal bari nañu ñi fi wuta nekk président te yàlla tudd ko bari na mais na fàttaliku ne waa Sénégal Macky Sall la ñu far 65 pour cent dina Macky Sall defal lii ak defal lële Macky Sall moom dofut ba ab noonam te su ma nee noonam la kenn du ma weddi ndax man xam naa leen ñoom ñaar ñépp di ko digal muy def loola maanaam njariñu Macky sàll mooy lu Idrissa Seck wax rek mu bañ a def loola ndax pexe mu koy skier rek pour jël place am la maanaam yàkkamti na sax mille 2019 bi sax da ko da yàkkamti na yegg ca jël retraite am mais ci diggante bi mi ngi làmbatu est-ce que waa PDS yi dinañ ko jox parti bi ndax duñ ko ko jox mais moom gëmatu leen yéen waa réew mi moo tax ma ne yéen ñi gëm seen bopp surtout les jeunes étudiants mais ñëw leen ñu liggéey parce que parti politique du rekk doon président de la république mais il y a yuy rendre service seenu askan il y a des députés il a des ministres lui il a été ministre dans le gouvernement de Abdou Diouf bi ñu gañee Macky Sall laaj na ko mu jox ko ñaari ministre kenn mënuma gën gën a gëm ne Oumar Gueye mi nga xam ne tey bàyyi na réew mi dem APR ministre yi nekk APR ñoo ko gën a jàmbaar non réew mi la jóge donc nañu waxante dëgg bu la leeree ne sa mbir jeex na dangay ngay nungu ne dogalu yàlla la ndax yàlla mooy fal te nit koo xam ne koo àndal tey bu subaa ñu laaj la anamu doo xam fu mu ne ànd ak yow wax dëgg yàlla wóorut jeunes yii bi ma leen recevoir dama leen ne commencé leen par gëm seen bopp man bu leen ma gëm gëm leen d'abord seen bopp ne gouvernement Sénégal ñi ci nekk ñëpp ay maîtriser ci am ak i bac plus cinq fii ñoom ñëpp c'est des doctorants koo ci laal rek je crois ki ci gën a tuuti le deuxième année lay def. ñoom ñëpp ñi ngi année de doctorat donc mënu ma leen ndax parce que li ñu jàng rek laa jàng dama leen ëpp expérience moo tax espoir bu rëy moo ma animé le fait que ñoom ñu ànd ak man di liggéey def ñu ay tournée dans des départements Goudomp Sédhiou maatam Kanel Ranérou Dagana Podor Kaffrine et cetera et cetera on est majoritaire partout fii rek moo ñu dese fii sax du yomb du yomb ni mu ma yombee feneen mais loolu mun naa ko comprendre fi la dëkk mais dinaa ko fi néewal doole li tax ma ko fi néewal doole mooy ñi ma àndal ñépp xam nañ ne coalition Benno Bokk Yaakaar moo ma fal man coalition Benno Bokk Yaakaar ci laa dem ba nekk député waaye man bu dee damay dama gore yéen ñi ñépp nekk réew mi kan moo ñu woteel loo Macky Sall 2012 Idrissa moo ñu wax wote leen Macky Sall ñu dem defar liste bokk ak ñoom mu bëgg ko wan ginnaaw ci loo xam ne duma ko nettali fii waaye dëgg nekku ca soxlaas boppam moo tax mu def loola man loola dama koy bañ man ak Macky sàll on est en coalition dans la coalition Benno Bokk Yaakaar loolu dama bëgg mu leer ci góor leer ci jigéen leer ci mag leer ci ndaw lu tax ñimewul porte plainte nag loolu moo tey suma xel na ngeen jàllale loolu maa ngi balu àq képp koo xam ne yaa ngi ci Sénégal ma xiiroon la ci moom nga topp ko ndax mën naa am ba ma koy def ñàkk xam tant loolu tuuma boobu teggi ko ñi ko jiiñ loolu ci senegal te nekk fi du fi yeewoo jàpp naa ne lañ koy jiiñ ah boo demee de yàlla rek moo xam mais 74 milliards duy ay caaxaan ñu ne yor na 17 comptes bancaires du ay caaxaan te ñun xam nañu lu ñu daj ci parti bi senegal maa ngi leen di balu ak ci loolu tant que weddiwu ko porté wut plainte jàpp leen rek ah liñ koy jiiñ mën naa nekk mi ngi bëgg a guddi mi ngi bëgg a guddi man nag fi may mujje rek mooy je remercie mon je ne même pas si c'est un frère ou un cousin man xaw ma parce que buur papaam Alioune Badara Niang bi ko jur Alioune Badara Niang bi jur